nga dégg li mu wax sëñ Cheikh Roqe ñu koy siyaar siyaar sëñ Fallu moom sëñ Modou Amin waaye siyaar xarit naal kul Baay Faal Cheikh am di Modou Mbend Cheikh Rafal sa waaja Cheikh sa waaja yoon wi waxoon naa leen ni tey la tey xulool ak jaan bu ñu leen tëkkalee dañoo matt ndowut xulool ak jaan bu ñu leen tëkkalee dañoo matt ndowut bu ñu mattanoo rek nga xam ne Dakar gi du benn. dëgg la eh, eh, damay delloo kàddu gi xadi waaye am na Ndeye Fatou Abdou lu mu bëgg a laaj xadi Euh, papa balaa laaj yi gis nga comme ni nga ko waxee Cheikh léegi rek am na lu ñu ko jox loo xamante ne addiye bu mu war a joxe la mhm. sànq itam yow am na yoo xamante ne joxe nga ko fi noonee la ñu bari di wootee di wax ni ñoom dañu bëgg a jox seen ay addiye kii di sëriñ Akassa Samb ak soxna Ndey Faatu ñu leen di ñaan ñoom ñaar ñëpp bu ñu mënee joxe seen ku ci nekk numéro wave boo xam ne mhm. dañ koy affiché ci écran bi ñëpp ñi leen bëgg jox addiye ñu envoyé leen ko waaw sëñ sëñ Mbàkke Madina ah, waaw sëñ Mbàkke Madina mhm. sëñ Mbàkke Madina Bachir mu sëñ Moustapha Bachir ma nga ca Mboro moo woote ne mi ngi ñaanal bugaan yàlla ne télé bii li mu def tey ci xoli murit yi sëñ Mbàkke na ne mi ngi ñaanal bugaan yàlla moom sëñ Moustapha Bachir moom Cheikh Mamadou Bachir moom sëriñ Touba di bàyyi faalu maam jaara nag moom itam parce que réew mi dafa dañ koo bokk te am na ñoo xamante ñu le temps ñu defar sa micro. Ah, daañu daañu ñëwaat ci yow. Ah, waaye sëñ Akassa Samb boo ñu mënoon jox sa numéro ah. rek léegi nii waa régie affiché Euh, ñu ñu dugalal addiya yi dugg ñu jaarale ko ci Wave incha allah. waaw 77. 77. 163. 163. 97. 97. 81. 81 163 97 81 waa régie bu fekkee note ngeen ko. 77 euh, mu mu bamtuwaat ko rek. 77 77. mu ngoog. 163. 163. 97. 97. 81. 81. mu ngoog régie mat na euh, na Ndeye faatu yow itam bu ñu mënee am numéro bu ñu la mën a dugalee les addiya yi Wave. 77. 77. 804. 804. 75. 75. 24. 24 mu ngoog euh, mat na papa mu ngoog. Fatou euh, laa bëggoon mu bàyyi rek am lu mu la wax. Fatou. Mhm. waaw Xadim euh, hmm? xanaa di kontaan rek. Hmm? ci Ndeye Fatou ñu ciy ziar. soxna hmm. nañ la bu ñuy commencé. Euh, bu sëñ Mbacke Mouhamed euh, kontaan na lool ci yow soxna Ndeye faatu di ci ziar également Fatou Mboup njaay moom it sunu confrère moom moo ko yor di pa Ali di ki nga xam ne mooy Pape nga Ndiaye di ci ziar boroom kër gi. ndax bu ñu duggee fi nga dugg muy sëñ Mbacke Mouhamed. dugg ci sëñ Cheikh Mbacke Gaynde ma euh, man bi bi nga waxee jawartu sama xol tooy na ndax te jawartu boobu dafa am lu bari lu may fàttali ci sama maam bi nga xam ne moom moo tax ñun ñu bokk Daaru Xuddoos ndax bi muy wàcc jawartu lañ ko jàngal ba mu wàcc donc loolu dafa am lu muy def ci li nga xam ne mooy mooy mburit Euh, donc c'est très important ñu ngi lay ziar bu baax a baax man papa laa xam ba xam euh, en général euh, yi nga fekkee tey muy Akassa Samb su su su yëkkatee Ndeye faatu soxna Ndeye Fatou yëkkati ak jàng yu yàgg yi nga xam ne fekkee woo fekkee wuñu ko ñun te ñu koy dégg sunu papa Abdoulaye Niang ak yeneen yi ban différence la parce que ñii ni tooy lay xol yi man maa ngi imaginer il y a 30 ans 40 ans ñooñu nan la ñu doon def. boo dégloo njàng mi nga xam ne déggoo xiin déggoo tama déggoo mbalax yi sëñ Bamba yi kenn du ko mbalax dañoo jàng dëgg fi bàyyam jaar nga la jaar ak sa daf noo fàttali démb ñoom Baye Cheikh Fall Xataaba ñoom euh, ñoom ñoom mut sàmb Fallu Njaay Baye Cheikh Fall Xataaba ak ñoom cuun gumba boo leen xamoon ak ak Mbay nga xam ni moo Alaaji Ablaay nag ñoo bokkoon sëñ Mbàkke Jóob kalsaan euh, bu bu Maxtaar Mbay jàngee ba ba mu delluwaat te maa yi mu yor yor bi jolli nga xam ni euh, euh, di altine kër Alaaji Omar Tall gii ñu jëm mhm. loolu da lay wan ni njàng maa ngi njàngum Sëriñ Tuubaa kenn ci dugal pop boo jàngee te muy dëgg mhm. day dugg ci xol yi waaye li mag ñi bindoon wax ko rasulullahi ñu bëgg ci indi mbagoo jeexal ak ta ak tama déedéet mag ñu binduñu woon loolu xaadir ñoo fi doon tëgg Cheikh Makhtar Diop su ma see génn ci ngumba danaan benn galan nga dem nguraan ka Cheikh day taraw loolu la ñuy def nga ñëw ngumba ka Serif ba ay dara loolu la ñuy def waaye lii nday faatu abdou lii mooy njàng mu dëgg <laughs> mooy njàng mu àndul ak kaf mooy njàng moo amul po mooy njàng moo amul regeñu mooy njàng moo amul ngóobi lii mooy dëgg moo tax tey moo tax tey eh, réew mi ba ku ñu fii waa waa waa Bamako Baba Galle ne Bamako yëpp génn nañu ne kuy taalube ne sappee ne moo waa kër Baay Ñas la waaye ne dafa génn mu ngoog mu ngoog moo loolu moo lay wan ni tey bugaan laal na fu baax te ñaan bii ko sëñ Mbàkke Madina ñaanal doomu sëñ Moussa Bachirou du Malick te murit feex day daanu di ñaq di joxe wallaay dëgg la Pape njàng mi tey sëñ Muntaxa mën na noo fekk fii nii mu jàngee bàyyam tiim na Cheikh Abdoulaat def ko te yokkum jumaa ji Cheikh Abdoulaat bibliothèque bi Cheikh Abdoulaat autoroute Cheikh Abdoulaat eh. daara kan Cheikh Abdoulaat kër mag moom Cheikh Abdoulaat eh université bi Cheikh Abdoulaat armée yu bees yi Cheikh Abdoulaat bisam la ñuy waaj lii Cheikh Abdou Khadir yii maa ngi teg ba léegi sama sëriñ bi mu fi nekk ilimaan la bi mu fi jógee ilimaan la xaadim borom nit ñi na ñëw sëriñ Tuubaa Cheikh Saliou Mbacké borom ngot borom njàpp ndax naa déglu li sëñ Cheikh bu mu ragal mi yàlla barki dem la ñu génn ci bisam bi sëñ Cheikh say doom gi toog Cheikh Mourtala góor yàlla ki tasaare diine ji ci Afrique ak ci Europe Cheikh boo demee Italie mm-hmm. boo demee am Italie. Mm-hmm. kër sëñ Bamba nga Brescia. dëgg la kër sëñ Bamba nga Singoñ. ak fan kër sëñ Bamba nga Nuwaru. ak fan kër sëñ kër yi daal daal dem Amérique. kër sëñ Bamba nga Memphis. kër sëñ Bamba nga Detroit. kër sëñ Bamba nga Cincinnati. kër sëñ Bamba nga Chicago. maam Mor doom ji di ko yokku. nga xool Cheikh Abdoulahi borom jërë joor ndox. bu ko demee lañu waxtaane Cheikh Ibrahima Mbacké. xaalis borom gis nga bu ngeen càmbaraaxee lu ne dëgg la waaye diggante ku naa moo julee ci gaal gi tooñ moo julee tooñ yàlla sa borom sëriñ Tuubaa jëlum dërëm sànni ci géej gi ci jullilu balaa ngoon mu dee. wallaahi dëgg la jërëjëf papa jërëjëf jërëjëf nag la tey tey looloo yëngu. Mm-hmm. Cheikh. waaw papa. Mm. mi ngi noonu ñu fàttali internet yi rek kontaan nañu si ñoom bu baax a baax a baax nañu gën a partagé gën a commenté te kuy commenté na nga ci bàyyiwaal sa numéro téléphone ndax dañuy joxe tamit addiya Cheikhul Khadim euh, ñoom Fatou Abdou Ndiaye Fall ak ñoom Ndeye Dimet liggéey ngeen liggéey bu am solo ci fan yi ñu génn waaye tey numéro bi mooy numéro un ci grand plateau. mooy numéro un ci grand plateau tey tey tey tey tey mooy numéro xamul tax mu nekk numéro un tey addi ji dafa war a parce que bii président Bougane Gueye Dany daano mhm. daal di jox soxna Ndeye Fatou ñan euh, cinq